Mamadou Mbaj la laa euh, nekk conseiller madame le maire di ko surtout ci wàllu formation euh, dafa fekk na mairie bi euh, béréb la le xam ni ñi fi djublu dañu bari dañu am solo population bi ñu bari dañuy xey di fi ñew di indiwaale li nga xam ne li ni seeni njàmbat la surtout ci wàllu liggéey ci wàllu formation parce que nag bëri na ñu bëgg liggéey daanaka ci yitte yi ëpp solo la tey ci Sénégal muy liggéeyu ndaw ñi nekk liggéeyu jigéen yi waaye ñi bëri ci ñoom tey amuñu xam-xam ak xarala bu leen di may ñu jot liggéey yi nga xamné ni ñoom lañuy yotu yóotu loolu nag moom maire bi japp né mom warna ci duggal loxom japp né warna jappelé président de la république ci ambition bu mu am pour euh, liggéey xeyu xalé yi pour xeyu jigéen yi loolu mom motax ñun maire ci yitéem bu mu am pour jappelé population Kaolack santoon ñu ne nañu dox lu ñu mën pour que population bi euh, seen bëgg-bëgg liggéey saafarawu wala bokk ñu teg leen ci yoon yoo xam ne yi yéen mën na ko saafara loolu tax bi ñu demee waxtaan ak ay organisme yoo xam ne yii nii dañuy financer formation ndaw ñi xëyu ndaw ñi wala bokk euh, xëyu ndaw ñi ak formation jigéen ñi dañ ci tase ak ay ONFP 3FPT ak yeneen i organisme ONFP nag formation yii nga xam ne moom la ñu dëgmal ñoom ñoo ko financé ñoom ñoo ñu ci jàppale euh, ànd ci nag ak kewarte gu rëy engagement bu mat parce que biñ demee seet si leen wan leen liste ay jigéen ay ndaw yoo xam ni soxla nañu liggéey jëlal nañ ñu lu toll ci ñaari téeméer ak fukk ak juróom-benn ci ay nit ñoo xam ni war nañ former ci à travers 11 sessions de formation fukki formation ak benn yi ñu war a dérouler tey dañu commencé woon dañu tàmbali woon ci formation maraîchage ak formation aviculture maraîchage ak agriculture dafa nek ñaari mbir yo xamné ni yu am solo la ci réew mi parce que nak am réew ba la nga mëna mom sa bop dafa fekk nga mëna dundal sa bop tambalé ci lolu parce que lolu mom motax euh formation yi tay ñu commencé que euh, ci ñaari formation yoy nonu muy euh, agriculture ak maraîchage and ci nak ak yeneen organisme de formation parce que ONFP dañuy boole ak ay organisme yoo xam ne nii ñoom ñoo war a dérouler formation yi tey loolu lañ tàmbali euh, maire bi à travers le premier adjoint monsieur Dieye du forme qui euh, ubbi séance bi en présence du coordonnateur des trois régions euh, de l'ONFP mooy Abdoulahat monsieur Abdoulaye Ndaw loolu lañ tàmbali tey di ñaan yàlla àggale ko Euh, ndaw ñi ak jigéen ñi nga xam ne ñoo koy def tamit mën tee jógee teg seen tànk ci yoon bu leen di jox liggéey